boo naan yow yaa war a nekk le président de la de la jeunesse ban entendement le jeune sénégale eh, bi nga xam ne dafa toog ci réew muy am fi mal-être ba jël gaal dem Nicaragua eh, le jeune sénégalais bi nga xam ne mu ngi fii gisul eh, l'horizon n'est pas n'est pas n'est pas amul liggéey njàng bi tagga témbe bu feebaree du mën a du mën a faju boobu xam nga boo xoolee ni population Sénégal bindoo population Afrique sax noonu la xaw noonu la bindoo li ci li ëpp ci ci ci ci ci Afrique on a une population très ay xale dañ ci bari ba pare connecté wu ci àdduna bi xam li xew ci àdduna bi yëpp maintenant boo connecté woo avantage bi mooy di nga xam inconvénient bi mooy mën nañ laa wax maa ñuy jaay la loo xam ne xamoo ko wala amul may mu ne liy dugg Sénégal bari na lool gis nga ni xale yi di génne noonu la fi ay xale yi di duggee donc ñuy dugg si yaakaar lañ fi am mais ñuy génn amuñu yaakaar ça c'est une observe lu ñu war a seetlu bu baax Sénégal position géographique am tax na aussi ñu bari dañuy jóge ci yeneen réew ñëw fii liggéey fii dajale fi dara génn dem euh, jéem a dem bitim réew foo xam ne jàpp nañ ni xëy na lañuy am foofu moo ëpp li ñuy am am senegal Sénégal moi je li ma wax mooy dama bëgg a nekk président de la République ndaw ñi cest à dem ciy bàyyi xel dëgg la bàyyi nañ ci xel lool mais dem ciy def doole parce que loolu moom mooy teyu réew mi mooy ëllëgu réew mi c'est la jeunesse en terme de formation et en terme d'emploi li ma la wax léegi aussi lu emploi ñett la mooy li état di joxe état ala kulli àllin day jël waaye li muy jël bariwul par rapport ñuy soxla secteur privé day joxe waaye secteur privé la muy joxe il faut que nga am cadre buy tax secteur privé mën a investir boo investir da ngay jël fii ay nit keneen investir jël keneen investir jël mais comme il faut le cadre mooy réforme yi nga doon wax léegi environnement des affaires réforme de la justice financement loolu mooy tax euh, investisseurs yi mën a ñëw ak beneen liggéey boo xam ni mën na jege sax euh, li ma wax léegi nii mooy auto emploi cest koo xam ne day liggéeyal boppam nekk entrepreneur boppam nga tegal ko un cadre mooy comme li am dans le cadre de la de la DER dama ne foofu la ñuy def doole ba nga xam ne doomu Sénégal xanaa mën nga génn dem tourisme kooku génn dem di ñëw moom euh, jaadu na mais boo bëggee am liggéey Sénégal di nga ko am liggéey Sénégal ma ne foofu lay def doole foofu lay woote concertation foofu la ñuy gën a waxtaanee foofu la ñuy def moo tax ma ne je me positionne comme le président de la République de l'emploi de jeunes la ñu koy may lañu ko may moo tey jii dañoo am ay fondamentaux xam nga fii ak ay weer yu néew jëlee fii oto doo wàcc autoroute ba Kaolack cent quatre-vingt-dix kilomètres presque deux cents kilomètres xam nga loolu c'est une avancée majeure diggante bi fi ak Dakar ba Kaolack c'est électrifié Dakar ba Kaolack daanaka am na ndox Dakar Saint-Louis autoroute bi dina tàmbali dina pare kon diggante boobu le temps que ngay continuer projet yi dem feneen lu bëree bëri mën nañ ko ci liggéey rien que ci wàllu agriculture mën ko transformer après muy industrie am nga foo ko jaarale am nga suuf si am nga ndox mi am nga courant bi lan moo des xëy na côté yi nga xam ni suuf si ñàkk na doole nga fexe fa def fa programme bu gaaw pour suuf si gën a amaat doole boo ko defee ak instrument financier yi nga xam ni fas nañ ko yéenee créer fii ak ñetti weer wala ñeenti weer mën naa awma sikki sàkk ni euh, la confiance va revenir mais koom-koom bi dina dina dox dox bu gaaw sax